mais moom. nu mu docteur Moussa Diop mune ma non parce que di ko déglu rek. Mm. heure boo moom heure bu waxee rek. Mm. ci weer bi dina ref dina ref ben ben ben casse bi donc euh, côté bobu je me dis que Ousmane faw mu staffé wu. Mm-hmm. Euh, am des gens qui sont bien. ba pare di len déggal aussi. pourtant je pense que le problème moy déggal parce que man man man wax nañ ma ne euh, il a il a il a quand même tout un staff hein moi yàgg naa wax né ku melni ne Bassirou Diomaye Faye. Euh, euh, que, que, j'apprécie beaucoup. Ouais. Euh, et nga xam ku pertinent aussi ku mën a wax. Mhm. Euh, kenn dégg ko mu def accident de langage ñu ne Bassirou je pense qu'ils sont très liés ñoom ñaar. mais c'est que tempérament yi du benn. voilà Bassirou dina wan. Ah, mais qui est ah. c'est que pour man Sonko après Doudou tu vas tu vas tu vas tu vas dire ce que tu en penses pour man Sonko euh, euh, war a njëkk gérer c'est d'abord euh, euh, ses humeurs moins son impulsivité et aussi euh, sa propension à dàggsante du de baat mhm. loo ko wax chaque seconde c'est-à-dire euh, man ñun ñun journaliste dañuy wax tout le temps né trop de communication tue la communication mais ñom tendance bi ñu am chaque seconde lu ñu ne ba de nit ñu génn woote conférence presse wax xam nga da fay banaliser sen sen seen discours. mais pourtant tout. Ousmane aurait dû ne pas trop parler parce que Ousmane a ses journalistes. Ah, mais il en a plein si corruption <laughs> mais il a infesté les rédactions. mais les pro sont nombreux. mais ils sont plus mhm. nombreux que les militants. Les prosonko sont, sont, beaucoup plus nombreux pour man que, ces militants qui ont la carte de, de, goût Sonko. Mais moi, petit peux pas. Moi, voilà, euh, euh staffé, en, tout cas, euh, euh, euh ci ci ci yi wax et surtout di wàññi wàññi présence am ci média yi. parce que mhm. euh, li ma wax tout le temps né euh, euh Sonko il faut mu mu mu mu mu comprendre mom mom ñi ànd ak moom ni ñu comprendre dayom mom non la desee comprendre pour man dayom parce que comprendre ñak comprendre dayom moy lu ñe bëgg a ñett ku mat mu xurira la barki démb Cheikh euh livre bi mu bind ak lim wax ci moom. Euh, euh, garaaw na garaawul garaaw na mais je pense que Sonko am na ñu wax ndax mom mo ëpp ko ko moom moo ëpp ay tontukat ak ay waxkat ci Sénégal mais téréwul genn na génn na tamit wax fa. wax fa lu alors avant mom mom muy génn wax ñi and ak mom genn nañu dal son dal dal donc c'est même pour moi il faut que mu muy muy muy tankam lu. il faut que muy tank muy tankam lu il faut que muy muy ndax euh bo ne am nga yow statut bi nga yor mooy nga nekk d'abord leader de l'opposition qu'on le veuille ou pas nga nekk aussi ce que je dis tout le temps l'homme politique le plus épié le plus le vraiment le plus en vue du Sénégal kooku euh, da ngay jëf lu bari di wax tuuti mais soo bëggee nekk dëkk bu mel Sénégal nga xam ñu ñi sama genre xam ne tekkuñu dara tous les jours nit ñi waxal la dara boo fa bëggee nekk lu la nit waxal nga génn tontu mais hmm. accident de langage du ci du ci ñàkk bi ni nii euh, euh, bu bu bu màmbay bi Euh, dama jàpp ne quel que soit alpha euh, euh, moom dafa war moom Sonko dafa war a moytu yoonu tribunal yu bari mooy li may wax tout le temps ne activiste yi sama xarit boobu Karim Khouroukara nga xam ne moom tamit je l'adore dama ko wax tout ne ko moytu ñu la jaga-jaga te doo dugal prison yoonu tribunal yoonu prison am na ay yoon yoo xam ne nii nit ku ne war nga am moytoo miin rawatina nag nga toll fi nga toll am statut bi nga am foog ngay muñ di tànkamlu mais euh, je pense qu'on peut être d'accord avec lui moi euh, on peut difficilement parler de complot on peut difficilement dire que c'est un piège parce que c'est lui-même donc je sais pas euh, Doudou. Hmm. ce que ce que ce que tu en penses ton avis. Hmm. bon par rapport à procès xam nga Aliou Sow la la la la très bien titré. Mhm. Aliou Sow moom. mooy lan moom non non Aliou Sow mooy kii. a noo de tuddee Le mandat c'est ça. waaw le mandat mais am na lu mu nekk fii de. Ah, envoyé euh, agent spécial. agent spécial Moi mooy un agent spécial. mais grand bi moom moom lan la moom. Euh, journaliste grand bi moi qui bin. bi. Hmm. grand bi. Euh, groupe bi mooy mooy fii nii ci kër est-ce que nous Nous ko jox duñ ko jox PCA. wala médiat non. médiateur médiateur joxe naa PCA médiateur public SN médiateur Ben Matar Diop jeex na léegi moom dafa ne le procès d'un lapsus mm-hmm. man pour man ligne de défense bi nga xam ne si lañ war a sukkandiku ñoom waa kër Sonko yi mm-hmm. ak ay avocat mm-hmm. mooy l'erreur jaawale rapportu IGE. moom kay wax na ko ne lapsus la IGF. gis nga loolu bu si bu si téye. Mhm. bu si téye parce que nag man man man man d'accord ma si ñiy bugg jël affaire bi parce que xanaa rek juge bi vraiment parce que fii y a yoo xam ni plus grave mhm. yoo xam ni am na fi mais mujjul fenn lu dul lu dul une simple amende pécuniaire a une idée. même même lui même lui nous Nous nous sax dama rek mais. nous mais ma mais mais mais <laughs> mais mais parce que les pour laver son honneur il mhm. mais condamnation Mm-hmm. Alors que les, alors que les, audiences en correctionnel, surtout pour faire une diffamation ak yu mel mm-hmm. def ay condamnation yu mel buñ ko pour la première fois rek suspect très très très très jeune journaliste man defe naa bokk naa ci journaliste yi yi yi porte porté plainte contre seen nawle journaliste porté naa plainte man contre pour déformation, contre après on est devenu des amis bi nga ñaax gis Amadou Diaw bu la la boobu et c'était un procès public parce que xam nga tur yi euh, hmm. je venais de démarrer euh, portant la presse euh, plainte aussi contre Madiambal Diagne avec son journal Weekend Magazine ñu ne àgg ba ba donc aussi il aussi y avait ful mais comme li on n'est pas obligé d'y aller parce que man hmm. dama la présence n'est pas tout. mais xam nga pour man Doudou ça dépend si qualité Euh, mhm. ña fay ña fay dem parce que tey jii xam nga benn Aïssatou Diop Fall bu porté plainte contre xëy na def bës euh, de foo dañu fa def mais yamul ak mooy lu benn wax sànq yamul ak ñii nga xam ne ñoo yàgg xiif Sonko Sonko ak surtout la jurisprudence laas loolu xam nga euh, du du tuuti benn ñaareel bi Mame Mbaye mi nga xam ne moom laa doon ne ko ci congélateur bi nga nekkoon yàgg dugg ci congélateur ba ba commencé maxe dégg nga euh, euh, ñëw euh, il n'a rien demandé yàgg na song sonko sonko musu ko tontu sonko lui a toujours répondu par par le mépris musu ko tontu mhm. donc keroog ak contexte bii nga xam ne ña nga naan ña ngay wax ci dina am ak du am dina dem ak du dem bii nga ñëw song ku mel ne Mame Mbaye bi nga xam ne defe naa ci Galaxy Macky Sall moo ko fa gën a sonal gën ko fa fat nga ñëw maye maye sa bopp nii Mame Mbaye nii comme ça cadeau gratuit. gratuit c'est du c'est du pain béni pour. mais non mais du pain nii kooku euh, euh, euh, déjà le simple fait rek mu porter plainte kii pour diffamation. Mhm. yoo xam ne ku ne xam na ne c'est extrêmement difficile. Euh, Sonko mun teg dara ci loxo euh, juge baalu àq beeg yooyu xam nga ne euh, kii borom égo la Sonko. Hmm. il ne le fera même bu ko bu ko ay avocat wam du baalu wax du il ne le fera jamais te aussi il n'est pas dit que te comme ni ma wax man pour man aussi xëy na foofu tam Sonko a a a raté le truc ndax man pour man dès le début. Hmm. ba mu ba mu defay affaire ba foofu mënoon a renverser laa doon ndax. bu fekkoon def na benn tiwitam yooyu. Hmm. wala génn daal non c'est automatiquement de ma juum. Ah. vraiment je présente mes excuses parce que comme nous mort tout le temps il faut ñu nangu ne benn ne arène politique bi du ay non adversaire la ñoom mën wax de lu ne. mais duñu ay duñu ay ennemi daal bu fekkoon dès le début rek qu'on ne on automatiquement dans le feu de l'action je présente mes excuses au ministre.